أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko naa loolu mbokk yi ñoo ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxid tey ñuy jël buntu baabun min al imaani billahi alsabru ala aqdaarillahi mu nekk fanweeri lu bunt ak ñeent ci kitaabu tawxid mu ne bokk na ci ngëm minal imaani billahi bokk na ci gëm yàlla assabru ala aqdaarillaahi ngay muñ ndogali yàlla yi mu nekk bunt boo xam ne war na jaral ab jullit mu sonn ci lool ndax léeg-léeg ci ñun ñu bari dañu feeñal ngëm di ko wone waaye lu bari ci ñun mbokk yi mënunoo muñ ndogali yàlla yi te ndogali yàlla daanaka ci dund jullit la ànd moo wër jullit moo peeg jullit bi biiram ak bitéem ci dogali yàlla la jullit di dund suba ngoon ci lay xëy ci lay yendu ci lay gont ci lay fanaan su fekkee jullit boobu moom dafa ne gëm na yàlla subhanahu wa taala te moom mënta muñ li yàlla di dogal ci moom kon nga mbokk yi dëgg dëgg ngëmum googu des na moo tax mu ne bokk na ci ngëm jullit bi muñ li yàlla di teg ci kawam bu dee ay jafe-jafe bu dee ay metit bu dee ay naqar bu dee ay coono bu dee ay feebar bu dee ay jàngoro bu dee ay tartar bu dee ay bànneex lu mu mun a doon mu yëg ne moom kat dafa am boroomam bu tudd Allah buur boobu moo koy testé mooy xool fu ngëmam ngi tollu moo tax mu wàcce ci moom ndogal yooyu alif laam miim axasiba annaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun bu leen foog bu leen wax ne bu leen yaakaar da ngeen di wax ne gëm ngeen yàlla rek yàlla bàyyi leen noonu kon dafay yomb saa yoo taxawee ne gëm naa yàlla muy dëgg ci yow saa yoo taxawee ne dama jëm ci yàlla ci sama boroom yëgal ne keroog la nattu yi tàmbale jëm ci yow parce que yàlla day xool ndax li nga wax dëgg la ci yow wala déet qaala alimaamu ahmad rahimahullah zakara allahu alsabr fi tisina mawdian min kitaabi zakara allahu الصبر في تسعين موضعا من كتابه am na sëriñ bu tudd imaam ahmed rahimahullah kenn la ci borom ñeenti ngir yi moom sëriñ bi yàlla nañu ko yàlla yërëmal fayal nu ko dafa wax ne sunu borom subhanahu wa taala wax na juróom ñeen fukki barab ci alquranul karim sunu borom wax na fa muñ juróom ñeen fukki yoon maanaa juróom ñeen fukki barab ci alquranul karim yàlla subhanahu wa taala wax na fa nit ñi mbirum muñ kon loolu du ndaw loolu du lu ndaw ku tol ne sunu borom di wax di waxaat di baamt ba mu nekk juróom ñeen fukki yoon ci téeram bii di alquran yàlla diñu fa wax mbirum muñ ah kon mbokk yi loolu war nañoo yëg ne du lu ndaw kon jullit dafa war a muñ lan mooy muñ maa huwa sabr xabsu nafs ala ma takrah muñ mooy nga poñe bakkan bi ba lii mu bañ mu nangu ko poñe bakkan bi téye ko ba bakkan bi lii mu bañ a def lii mu bañ a nangu mu nangu ko mu def ko loolu mooy muñ mais fii looy dégg sama muñukaay dafa jeex kon muñoo woon moo tax sunu boroom day tagg ñi nga xam ne dañoo muñ continuer ci ñi nga xam ne dañoo poñe seen bakkan defloo ko li mu bañ suñu boroom nee na loolu nag kenn duñ ko am maa yulaqaaha illa allazina sabaru loolu kenn du ko mën a def lu dul muñkat yi maa yulaqaaha illa zu xazin azim yàlla nee nañ loolu kenn du ko am lu dul borom cër yi rëy ci yàlla am na ñoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala daf leen a jagleel ay martaba ay daraja ay place ñooñu dong ñoo ñooy muñkat yi nag ñooñ ñooy feebar doo ko sentir ñooñ ñooy xiif kenn du ko yëg ñooñ ñooy mar kenn du ko yëg ñoo am ay tar ay natt natt yoo xamante ne bu wàccoon ci montagne yi montagne yi explosé ñu romb la ndeysaan ñu ngi sangu sol seeni yére nga yaakaar ne ñi ay millionnaire lañ lu tax parce que xam nañu am na borom bu leen di testé borom bu leen di natt te ñoom rus nañu jàmbat seeni aajo keneen ku dul seen borom boobu ñëw na ci xadis fi saxiix yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne as-sabru diya muñ leer la xadis boobu imaamu ahmad moo nu ko nettali rawaahu ahmad wa muslim min xadisi abi malik al ashari radiyallahu anhu wa ardah sahaaba bu tudd abu musa abi malik al ashari nettali na nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na muñ leer la waaw waaw muñ leer la muñ ku ci nekk rek ci leer ngay dund doo dund ci lëndëm ndax kan moo la muñ loo yàlla li tax nga muñ mooy yàlla kon yàlla moomu muñ loo la du la bàyyi ci lëndëm daf lay nattu rek ay fan la yu néew looloo tax ndeysaan fan yu néew yooyu mu la natt weer yooyu mu lay natt at boobu mu la natt xiin la wula tiim xiin nag bu tiimee ay nit bu nekkee ci asamaan tiim ay nit li mu wóor mooy ñaar rek moo fi nekk mu taw maa mu ngelaw seey su la xiin tiimee nag nga saalit ci day taw wala tawut kon day fekk ne yow gëmoo woon moo tax ab jullit dafay gëm dogalu yàlla beneen hadis al imaamu buxaari ak muslim nettali ñu ko ci seeni téere hadis bi marfu dañ koo yëkkati ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam saa yoo déggee marfu mooy wax ji ci yonent bi la yim egg na ci yonent bi yonent bee ko wax soo déggee mawquuf mooy dañ koo sësal ci saxaaba bi mu ne maa utiya ahad ata xayran wa awsa min alsabr allahu akbar sunu yonent bi yàlla yónni ci ñun nee na yàlla joxul kenn maa utiya ahad ato yàlla mayul kenn dara yàlla joxul kenn lu gën lu gën a yaatu muñ kon looy dégg ci loolu yàlla lu mu la mën a jox lu mu mën a mën a mën a rëy soo mënul muñ yow amoo dara bu yeboo nga mën a julli bu yeboo nga mën a woor bu yeboo nga mën a aji bu yeboo nga mën a saraxe bu yeboo nga mën a naafila bu yeboo bu yeboo soo mënta muñ amoo dara bal sax dëgg-dëgg da nga fekk mbir yooyu ñi koy def dëgg dëgg dëgg ay muñkat lañ parce que bala nga nekk jullikat dëgg nga yeewu fajar di julli ca waxtu wa respecté julli yi ci waxtu yi di ko def nu mu matee bala ngay nekk woor ka dëgg-dëgg nga nekk muñ bala ngay mën a aji màkka dëgg di jaamu yàlla nga nekk muñ kat balaa ngay mën a saraxi dëgg dëgg dëgg affaire bi génn sa poos di dem nga mën a muñ moo tax yonent nee na joxuñu kenn loo xamante ne ab jox la maa utiya ahadun ataa xayran wa awsa min as-sabr hadis boobu hadisu abi said la radiyallahu anhu wa arda abu said nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na joxuñu kenn ci àdduna lu gën a yaatu lu gën a baax muñ kon lépp lu jullit am ci kaw suuf su fekkee amoo muñ xoolaatal sa bopp su fekkee mënoo muñ mënoo dékku nattu yi yi yàlla di teg sa kaw mënoo koo dékku mën na nekk njaboot mën na nekk soxna mën na nekk liggéeykaay mën na nekk dëkkandoo mën na nekk feebar mën na nekk ñàkk mën na nekk mën na nekk su fekkee yooyu mënoo cee muñ dara su la dara ne tër rek ñépp yëg ko kon yow yëgal ne yàlla xañ na la lu baree baree baree baree bari ci ay mbir yoo xam ne ay xéewalam la yi mu jox doomu aadama yi te loolu li ci gën a rëy mooy muñ qaala umar wajadna xayra aychina bisabri rawahu albuxaariyu hadis boobu muallaq la Umar ne fekk nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam nenu amul lu gën a rëy lu nu am wajadnaa xayra iishina ñun de fekk nañ ci sunu dund li ci gën a rëy di tiyaaba di xéewal mooy muñ allahu akbar loo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis jàkkaarloo nag saxaaba yi laaj leen benn laaj ne leen amuminuuna antum ndax yéen ñi gëm ngeen yàlla amuminuuna antum ndax gëm ngeen bunt bi ñuy jàng mooy lan min al imaani billah as-sabr yonent bi ne sahaaba yi ndax gëm ngeen yàlla amuminuuna antum ndax gëm ngeen dëgg dëgg Omar jóg taxaw ne ko naam gëm nañu yàlla dëggi dëggi gëm yenent bi ne Omar fa ma alaamatu imaanikum luy wane ne yéen ñi gëm ngeen yàlla dëgg-dëgg Omar ne ko ya rasulallah narda bil qada yow mi yà yonent bi yàlla yónni narda bil qada ñun de lu yàlla dogal suñu kaw nangu nanu ko narda bil qada mu ne ko ndax jeex na mu ne ko déedéet nasbiru alal balaa natt bu yàlla teg suñu kaw ñu muñ ko mu ne ko ndax jeex na mu ne ko déedéet lu ci des mu ne ko wa nashkuru fi raxa su neexee nu sant yàlla kon ñett yi su fekkee ab jullit mënu ko rek gëmagul yàlla waaw su fekkee li yàlla dogal sa kaw mënoo koo nangu parce que dafa bokk ci sa dund al imaanu bil qadr xayrihi wa sharrihi dafa bokk ci sa dund yàlla daf lay natt su fekkee bu la yàlla nattoo mënoo koo muñ yow gëmoo dafa bokk ci sa dund yàlla daf lay teg ay mbir mënoo koo nangu gëmoo nanguwoo li yàlla dogal sa kaw yow gëmugoo yàlla waaye su fekkee bu la yàlla nattoo doo muñ wa nasbiru alal balaa bu yàlla tegee sa kaw balaa am na ñoo xam ne fi mu nekk nii bu ñu ñàkkee saalit lan moo waral agression bu métti bi ah ñàkk lu waral càcc gi ñàkk lu waral wayaan gu bari gi ñàkk lu waral jàmbat gi ñàkk lu tax du nu muñ ana sabr ayna sabr ana muñ tax du nu muñ lu tax du nu muñ takkook suñu boroom di ko tàllal suñu loxo di sujjóot di ko ñaan li waa ji doon wax man duma ñaan kenn duma woo kenn duma laqatu ci kenn duma seeti kenn maa daama xam naa sama boroom mu ngi fi su may ñaan moom laay ñaan su may woo moom laay woo su may laqatu ci moom laay woo moom laay laqatu lu tax sama boroom di fi nekk may woo keneen lu tax loolu nag tolluwaay la loolu place la li la fay yóbbu nag mooy jéem a xeex ak sa bakkan jéem a sell jéem a def jaamu yàlla yi ba nga xam ne yàlla rek moo fi nekk nga am kóolute ci moom nga jox ko sa bopp benn borom xam-xam nee na nit ñi dañuy yéeg avion avion bi def 300 personnes ñu nekk ci kaw jaww ji avion bi amul fu mu la ngaamu amul loxo yu koy téye capitaine bi rek moo ko yore di ko dawal ñépp seen xel tranquille ci biir boyin bi ñépp seen xel dal ñi ngi naan café ñi ngi seetaan télé ñi ngi lire journaux ñi ngi nelaw ñi ngi lire roman ñenn ñi sax bu fekkee benn couple la bu ànd ñu ngi tegante ay bopp di wax wax yu sedd ndànk ci suuf ku nekk mu ngi am confiance sa xel ak dal te buyin baa ngi ci jaww ji ñépp seen xel dal na mu ne ñun ci àdduna bi ñu ngi ci loxo yàlla te wóoluwunu walla ci àddina bi dund gi nuy dund ñun ñëpp ñu ngi ci loxo yàlla wóoluwunu ñu ngi ci kaw booyin bi ñu am kóolute parce que benn waay moo koy dawal ñu ngi ci bit bato bi ñu am kóolute parce que benn waay moo koy dawal ñu ngi ci oto bi ñu am kóolute parce que benn waay moo koy dawal ñu ngi ci dund àdduna ñu ngi ci loxo yàlla wóoluwunu lii mooy sunu problème amuñ ci yàlla confiance loolu tukulóor yi naan allah na waaye warde ngelooba kono o woowa ɗum ajjinde ɗum ñoyi tukulóor fii haalpulaar en ɓe ɓe mbi haalpulaar en ɓe ngala imane ɓe ngala limanagal ɓe ɓe ngannduɗa limanagal mumen cellani ɓe ngannda allah ɓe mbi allah ina waawi warde ngelooba kono o waawa ɗum ajjinde ndeysaan kooku moom mbokki mbokki xalifa yi dañoo daan ñu ne yàlla mën naa rey gëléem mais mënu ko jaaxaanal mais mën na ko rey lan moo tax ñoom ñu xalaate noonu lu tax xam nga gëléem nu mel boos bi nu mel ak yaram bi ñu ne yàlla d'accord nañ yàlla mën na ko rey mu tëdd mais mu jaaxaanal ko nii loolu mënul nekk ah waaw mais ki rey dara kay ba mu dëgg da nga naa jaaxaanal ko du jafe wala ah waaw yaa ko rey mbir mi ni mu amee doole ni mu guddee ni mu njoolee nga tëdd roog ba munta jóg kon kay wax dëgg yàlla buñ la ne woon jaaxaanal ko nga jaaxaanal ko wax dëgg yàlla nit sax mën na rey gëleen jaaxaanal ko nit waxuma laa nag gëleen waxuma laa nag yàlla kon loolu du waxu nit loolu moom du wax du waxu du waxu nit allah ne wawi warde ngelooba kono wawa ɗum ajjinde ɗum wona haala kaalen gotka allah ajjini ko ɓuri ngelooba saka noon ngelooba wajadna hayra ichina bi sabre omar ne ñun dey fekk nan dund gi gën a neex ci sunu dund mooy muñ ndeysaan ndeke muñ dund bu neex la waaye ci kan lay neex mooy ki ko mën ki ko tàmm ki ko xam gis nga jàmbat bu metti ak waxtu lan lay indi ci nit ñi nga xam ne yaa ngi leen di jàmbat lu muy indi yaweel xeebati ñàkkal la fayda ñàkkal la solo dangaa feebar dangaa ñàkk dangaa xiif fi mu nekk nii boo gàddu woon sa bool rek kër gu ne nga dugg fa may leen ma ma lekk ñu jox la suba nga ñëwaat ñu jox la ginnaaw suba nga ñëwaat ñu jox la ginnaaw suba nga ñëwaat ginnaawaat suba lu ñuy wax sawaay gis nga yow nag gis nga wala pourtant yow amu da ngaa war a ñëw ci nit ñi waaye gis nga ñoom duñ ko gisee noonu moo tax waykat ba ne ndeysaan doomu aadama boo koy ñaan da lay mere ah yàlla boo ko ñaanul mu mere la wallahu in tarakta su'alahu yaghdabu wa bani aadama hiina yus'alu yaghdabu allahu in tarakta su'alahu yaghdabu wa bani aadama hiina yus'alu yughdabu yàlla soo ko bàyyee ñaan dalay mere doomu aadama boo koy ñaan bis fu nekk dalay du benn de yàlla boo ko ñaanul mu mere la doomu aadama bis bu nekk boo koy ñaan mere la kon du benn allahu in tarakta su'alahu yaxdabu yàlla boo ko bàyyee ñaan mu mere la loolu sax la wax maa ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aukum su ngeen ma dul woon ñaan du ma leen faale te yàlla nee na ñi ngand ngandulu ba duñ ma ñaan safara laa leen jome na allazina yastakbiruna an ibadati sa yadxuluna jahannama daxirin kon mbokk yi noo ngi ci tomb bu am njëriñ tomb bu doy waar tomb bu jara jàngaat bu jara nafaraat bu jara déglu bu boo xam ne tamit doomu aadama bu ko dundee addunaam ak àllaaxiram day baax qaala aliyin radiallahu anhu wa ardaahu inna sabra min al iman bi manzilati ras min al jasad summa rafaa sawtahu fa qaal ala innahu la imaana liman la sabra la hadis boobu mbokk yi mu ngi ci fi sarxi usulul iqtiqaadi ahlu sunna imam ali ne inna sabra min al imaani muñ kat ci ngëm yàlla la bokk mu ne bu ngeen bëggee xam muñ ban position la taxawee mu ne bi manzilati ras min al jasad mu ne bu ngeen bëggee xam muñ nan la taxawee ci martaba ci diine mooy bopp rek ci yaram bopp ah nit bu amul tànk mun na dox wala wala ah nit bu amul tànk mun na dox dina dund bu amul tànk mun na dund mun na dund ok nit bu amul loxo mun na dund ok nit bu amul nopp mun na dund nopp ah nit bu amul bët mun na dund nit bu mënul wax mun na dund ah nit bu amul bopp nag ah mun na dund noonu la muñ mel ci ngëm yàlla muñ ci ngëm yàlla mu ngi mel ne bopp kon su fi muñ jógee lu fi des dund amatu fa gëm yàlla nekkatu fa koo xam ne da nga ne man damay jaamu yàlla dama gëm yàlla te mënumaa muñ ngëm yàlla nekkul ci yow du dëkk foo gis jaamu ko yàlla dafay mën a muñ parce que jaamu yàlla balaa nga koy def ba nga muñ balaa ngay woor fa nga mën a muñ xiif balaa ngay julli fa nga mën a muñ balaa ngay aji fa nga mën a muñ balaa ngay saraxe fa nga jaamu yàlla yépp balaa nga koy def foog nga mën a muñ moo tax mu ne al iman min al sabr bi manzilati raas min al jasad mu ne summa rafaa sawtahu moom da ko doon wax après mu yuuxu ci kaw mu ne dama ne ala innahu la imaana liman la sabra la maa ngi leen di yëgal ne képp koo xam ne mënoo muñ amoo ngëm yàlla ala dama ne innahu la imaana liman la sabra la maa ngi leen di yëgal ni képp koo xam ne mënoo muñ amoo ngëm yàlla Seydina Aliyin moom lii mooy gis-gisam ci muñ lii la Omar wax Omar wax na imaam Ali wax nanu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam wax nanu ana lan mooy muñ mbokki jullit yi mu ne wastiqaaquhu min as-sabr ida xabasa wa munia aw manaa wa sabr xabsu nafs min aljazi wa xabsu lisaani an altashki wa tasaxuti waljawaarixi an allatmi alxudud wa saqi aljuyub wa nahwihima zakara ibnu alqayim rahimahu llah alimam ibnu alqayim nee na bim nii firil lan mooy muñ mu ne man sabara képp koo xam ne da nga muñ wala mina sabri bokk na ci muñ isa xabasa mooy boo téyee sa bopp wa manaa nga tere ko xabs mooy yeewu takku ba dëgër këcc mooy xabs tere sa bopp wa manaa nga xañ bakkan bi lim waroon def mu ne wa sabru muñ xabsu nafs mooy poñe bakkan bi anil jazi ci jafe-jafe yeeg yuuxu yeeg da ngaa waroon yuuxu nga téye sa bopp da ngaa waroon tiit nga téye sa bopp rek la da ngaa waroon saalit nga téye sa bopp loolu mooy aljazza wa habsul lisaani mu ne nga poñe làmmiñ bi ani tashki ci jàmbat ah au lieu làmmiñ bi fu mu dem rek ne nangam déedéet téye làmmiñ bi wata saxuti ak mer foo dem rek guux say lex commencé nangam nangam nangam nangam déedéet wata saxuti mooy loolu nga téye làmmiñ bi est-ce que loolu rek la mu ne wal jawaarihi ak cër yi nga téye cër yi da nga musiba dalaa dal misaal da ngaa deele mu ne nga téye cër yi ani latmil xudu ci pes da ngay gis fi mu nekk nii ku deele di pes boppam di gajj boppam dagg caq yi ah di mbëkk miir yi di yuuxu nee na loolu de du diine ku muñ dafay téye ay cëram ba du pes boppam du pes yaramam du pes ay lexam wa saqil juyub du xotti ay poosam wa nahwihima ak yeneen yu mel noonu ndeysaan mus naa fekkee benn dëj benn xa benn kër goo xam ne dañoo jékki-jékki rek ñu yuuxu daan ne borom kër gi gaañu na ñun ñëpp ñu daw dugg ci biir kër gi ñu fekk nit ñi di bërëngu ki ci gënoon ndeysaan bërëngu nag di yuuxu yuuxu yu metti yi ab xale bu jigéen la gaa yi daw jëm ci moom naan ko gëmal yàlla mu ne gëmuma yàlla gëmuma maa tay di yuuxu di bërëngu ah waaye dégg naa ñu sangee góor gi ba yóbbu ko ba ñëwaat ñu ne ko léegi nag ñu xool ko mu noppi ñu ne ko waa sa ndaw soxna si ah noppi nga ndeke ndeke di nga noppi gaa yi ne waaye bàyyi leen ko bàyyi leen ko rek dafa doon xamul rek dafa xamul tiim ko ne ko ndop di nga noppi ndeke ah ma yaakaar naa ne doon noppi de continuer waay ndeysaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk na benn jigéen di suul doomam ñuy suul doomam ndaw si di yuuxu di def lii nuy wax di gajj kanamam di taskaalaam di yuuxu di sànneeku yonent bi ñëw ba ci moom ne ko soxna si te nga muñ mu ne ko muñu ma li ma dal dalaa dalul yonent bi daal dem gaa yi ne ko xam nga ki doon wax ak yow mu ne déedéet ñu ne ko kooku day mooy rasulallah mu daw bëgg koo dabi ñëw bëgg a wax yonent bi ne ko déedéet as-sabru inda sadmatil ula c'est trop tard muñ mooy ba mu la mbir mi dalee instant yi moom da ngay réparé te dem na mbir mi dem na passé na moo tax su la yàlla nattoo bul saalit wolof yi dañuy wax ne bu robinet bi tëjee nga naan putit bu robinet yi tëjee nooy def da ngay rus ñu ne la robinet bi tëj na rek nga ñëw ne fekk kuy fóot rek nga ne ko may ma naan ñu tànqal la ci ñaari pon nga naan nga naan ba pare ñu ne la robinet bi ubbi na de nooy def kon nit day teey nit day dal nit day ànd ak sago nit day muñ day am patience muñ gis nga bu weer yàlla daf ñuy jàngal lépp ci jaamu yàlla pour ñu mën a muñ xoolal koor bu ñëwee yàlla ne la bu lekk ñaata waxtu ñaata waxtu ñu ne la bu lekk nga toog rek waa di muñ dugg nga ci biir néeg bi kenn nekku dugg nga ci waañ bi ubbi nga frigo bi gis nga affaire yépp a ngi nii waaw nga xool ko mu xool la yenn saay sax lekk bi ne la xanaa xiifoo nga ni aouzu billahi min shaitan rajim aouzu billahi min shaitan rajim daal tëj daal di génn gis nga yaa ngi jéem mais suñu problème mooy noonu ñuy muñee ci koor ci jaamu yàlla muñ ci tere sax bët yi bët yi fi mu nekk nii am na ñoo xam ne bu ñu waree du ñu seetaan télé ndax dañu naan damay gis jigéen bu def yaramu neen wala yenn film yi boo ko seetaanee da nga ci gis loo xam ne waroo koo gis nangam ak nangam kon du ma ko seetaan ci mbedd mi tamit xale bu jigéen bu la romb sax nga ne gis nga yow ku bon nga da ngaa bëgg a yàq koor nit ñi nangam nangam doo xool fële waaw gis nga yaa ngi xeex mais problème bi mooy ndeysaan su koor gi jeexee rek waaye yow booy yow doo jaar fi yow ñu wax te pourtant démb yaa ngi doon wax a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim ay booy yow temps yi wari nañ nag gis nga temps yi wari nañ de ayna allah ana yàlla kon yàlla dem na koor ba koor la fi nekk yal na nu yàlla teg ci dëgg yal na nu yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu sori mu wërsëgal ñu ñu dund ko yal na nu yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko mu ne kon mooy muñ ci pes lex yi ak di xotti poos yi ak yeneen yu mel noonu loolu la Ibnul Qayyim wax mu ne waalam anna sabra salaasatu aqsaam jaami yàlla yi mu ne na ngeen yëg ne muñ ñetti façon la sabrun ala ma amara allah muñ li yàlla digle wa sabrun amma naha anhu muñ li yàlla tere wa sabrun ala qadrihi ala qadrihi ala qadrihi du lool de min al masaib ala ma ala ma qaddarahu allah min al masaib sahih loolu la muñ ñetti façon la sabrun ma amara allahu bihi ala ma amara allahu bihi muñ li yàlla santaane loolu mooy lan lan la yàlla santaane mooy julli yi koor yi aji màkk yi nangam nangam yi loolu yàlla da ko santaane kon pour nga def ko foog nga foog nga muñ wa sabrun amma naha allah dafa am loo xam ne yàlla def ko tere pour nga bàyyi ko aussi foog nga muñ xoolal tey rek xool xoole xool xool lu xaraam xoole ak a neex nga xëy rek toog sa sa sa kër sa buntu kër wala sa place ku la romb rek nga nekk ci moom xool sa xol bi day dund parce que yaa ngi dundal sa xol waaw xale bu jigéen bu romb parce que kenn du sol lu baax waaye da ngay yëg ni lii yàlla daf ko tere nga bañ ko xool jël alali jàmbur jël loo moomul ah xoolal tey loolu ni mu bëree ci dëkk bi yenn saa yi sax nit wax ak yow wàcc fàtte weccet nga ne ko saawaay mu ne nga ne ko lii yaa ko moom mu ne ah waaye saa yi tax jëloo ko non dama ko moom ba koy jël gis nga nit ñi sax problème lañ am léegi boo amee ak ñoom benn xaalis bu ndaw nga ragal yàlla delloo leen dañ naan ah saawaay yow ku mel ne yow jafe na de. la ilaha illallah xoolal loolu léegi kéemtaan la wala ku fàtte dara ci oto nga gis borom taxi bi dem ba. rajo ne man dafa am benn waaye bu fàtte benn saak ay 2 millions ñu ni mais saa kii dootul tekki kii dafa dof dootul tekki alalu jàmbur nga jël ko nga ni dootoo tekki alalu jàmbur xanaa xamoo boo ko lekkee fii boo duggee bàmmeel xam wallahi ku lekk dërëmu jàmbur ba nga dugg bàmmeel moo tax doomu aadama yi jar na ñoo jàngalaat jar na noo waxalaat gis nga dëkk bi war na nu wax ak nit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man akala luqmatan min xaraamin laa tuqbal lahu salaasa arbaina yowman képp ku lekk benn tibb tibb dank dank ceeb boo dank lekk ko fekk dafa xaraam yonent bi nee na 40 jours boo jullee yàlla du ko nangu kullu maalin nabata ala xaraamin fannaaru awlaa bi bépp alal boo xam ne cosaan bi dafa araam alal jooju safara moo ci yay waaw nit du lekk lu xaraam lu araam bu nekkee ci sa biir bi ni cin cin di baxee ba dernier degré noonu la jahannama di bax baxee sa biir yowmal xiyaamati loolu doomu aadama mënu ko dékku xoolal ki nga tiriyaande nga lekk alalam booy lekk naa ci waa ji 500 de 500 francs nga ci lekk am naa ci moom 2000 de am naa ci moom benn 5000 de am naa ci moom benn sagaru 50000 waa ji dóor naa ko am naa ci moom benn 1 million birig birig laa ko dóor quelques jours ñaari weer ñetti weer ana xaalis ba jeex na. nga dem yowmal xiyaam nag yéen ñaar ngeen daje yàlla ne la kii nga jëloon million ñu ne waaw yàlla ne fay ko nga ne ko ah man aw ma lu ma ko fay de aw ma xaalis waaw aw ma fi leen lu ma indaale yàlla mën a jox ko say tiyaaba ñu jël sa tiyaaba yi di ko jox waa ji kooku pare keneen ñëw ne la man tamit yoraloon nga ma yàlla ne la jox ko kooku pare keneen ñëw yàlla ne la jox ko tiyaaba yi jeex keneen ñëw taxaw ne yàlla kii waa ji yoral na ma manit de yàlla mu ne jox ko nga ne awma lu ma ko jox yàlla mu ne waajooju tibbal sa bàkkaar sottil ko waaw gis nga kooku tibb ci bàkkaaram sol la keneen ñëw ñu sol la keneen ñëw maanaam ñee nga yoral dañuy jël ñii nga mun ta fay dañ lay jox foo jëm ah foo jëm moo tax yonent bi ne xam ngeen ku perte a taarifuna man humul muflis xam ngeen ku perte sahaaba yi ne ko waaw waaw al muflisu fii na ku perte ci ñun mooy ku doon jaay jaay jaay jaay daal di daanu amatul dara yonent bi ne déedéet ku pertul de ndax suñ ko dimbaliwaatee mu jóg ku perte mooy ku julli ba sonn woor ba sonn as aji màkk sarax waaye nag daa jël alalu kii daa tooñ kii daa saaga kee daa dóor kii yowmal xiyaam mu ñëw ñoo ñëpp taxaw yàlla ne ko fayal ñii ñëpp tiyaaba yi mu defoon yëpp ñu séddale ko gaa yi mu jeexal ñu jël bàkkaar yi ñeneen ñi sëf ko ko yonent bi ne na kii moo perte kon loolu nañ ko moytandiku kon muñ mooy li la yàlla sant nga def ko li la yàlla tere nga bàyyi wa sabru ala ma qaddarahu llahu min al masaayib nga muñ aussi jafe-jafe yeeg nattu yeeg feebar yeeg jàng jàngoro yi yàlla teg sa kaw nga muñ ko ñett yi mooy muñ muñ li yàlla digle muñ li yàlla tere muñ jafe-jafe yeeg jàngoro yeeg nattu yi mbokk yi yàlla nu yàlla dimbali ñu mun ko def lii mooy sunu darsa tey assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh